cas de Ousmane Sonko interpellé nañu ki nga xamante ni mooy le président Macky Sall président Macky Sall moo ko fi diggee woon euh, nee na il veillera à ce que les décisions de justice ñu koy exécuter tey lan moo war a nekk taxawaayam. Euh, taxawaayam avant ñu koy jox réew mi ak bi koy jox réew ak bi mu nekk président de la république benn la war a nekk mooy une justice libre transparente bañ a jéng te tout le temps je le dis j'ai l'habitude de dire que au Sénégal dafa mel ni ñaari justice la boo xamante ne justice à double vitesse boo xam ne bu fekkee arrangé nañu ne ci pouvoir bi seen dossier day rapide ñi nga xamante ne arrangé wuñu te ne wuñu ci pouvoir bi seen dossier du rapide surtout sur le plan politique bi ma déggee mu wax loolu ne li ko desee pour mu jógee ci réew mi dana def lu tuuba yi respecter les décisions judiciaires man dama ne xanaa kon daawuñu daawuñu ko respecté daawuñu ko respecté pourquoi ces propos des fois le président day génne communication boo xamante ne te dutalewu les Sénégalais par rapport ak la transparence ba muy toog fi wax naan moo jël loxoom teg ko ci ay conc ci wàllu dossier judiciaire ci réew mi mais 2012 bi ñu la falee président de la république on dit que le président de la république est le gardien de la constitution bu ñu wax la constitution du Sénégal c'est pratiquement les textes les règles et les lois kon tey justice bu transparente justice bu équitable bu tegu ci dëgg ba sénégalais bi ne ci kaso bi benn jow yàmba wala benn ginaar yóbbu ko fa wala ñu tooñ ko wala tooñut ñu atte ko mook Sénégal bi nga xam ne dafa am alal wala mook Sénégal bi nga xam ne siiw nañoo yem et pour rappel y' a plus de y' a de six mille détenus yoo xamante ne ñu ngi ci biir prison bi di xaar ku leen di atte amuñu temps wala délai boo xam ne wala magistrat yu leen mën a atte et pourtant ñooñu ay citoyens sénégalais à part entière ñoom ak politiciens yi waxtaan ñoo yem ñoo yem mais tey jii bëri na ay dossiers yoo xam ne boo demee tribunal da nga ko fay fekk te pourtant ña fa nekk bu fekkee dëgg rek tooñ nañu wala tooñuñu heure bi waroon na fekk ñu attelé ba teg seen cas moo tax ma ne la tey bu toogee ne li ko fi dese euh, justice bi dana fexe ba muy tënku ci ay ndigal mais du ma ko interpeller ci dossier bi parce que boo ci bu ma ko ci interpeller day mel ni dafa am de sénégalais spécial yoo xamante ne à tout moment dañu war a am benn réserve boo xam ne ñoom ñoo koy féetewoo. justice bi fi nekk Macky Sall di ko protéger c'est pour les dix-huit millions de Sénégalais depuis benn moment on est très fatigué à travers les amalgames de la justice tey juriste yi bu juriste bi génnee joxe avis point de vue ci côté bi beneen juriste dana génn weddi ko wax leneen wax leneen bu juge bi joxee décision judiciaire avocat dina génn wala beneen moroom mu juge wala keneen génn da ngay dem ba mu benn instant donc nous ne sommes pas des des experts judiciaires wala des experts dans l'art mais da dem ba benn instant boo xam ne après sénégalais lambda bi war a xam naka la justice di doxe mais day dem ba dafay réer day dem bu defee réer. parce que tout le monde est juriste. tout le monde est juriste baax na ci parce que effet judiciaire yi nga dem moo am ci suñu turu politiciens yi ak suñu borom alal yi nga xam ne ñuy sàcc alal réew bi ëllëg ñu leen di juger tey jii boo xoolee situation politique bi tax na ñu bari. commencé nañoo xam léegi quand on dit que nul n'est ignoré nul n'est san sans euh, euh censé ignorer la loi mhm. mais tey ñu bari léegi commencé nañoo comprendre les procédures judiciaires du Sénégal contumace am na ñoom ne presque mosuñu ko xam daawuñu dégg contumace xamuñu woon lu xew tey ñu ngi koy commencé xam